sagar ma ngay xeeñ ci diggante kuréel gi lëkkale mboolem communicateur traditionnel yi nekk fii ci Touba la ko sabab nag du lenn lu dut ñenn ci ñi bokk ci kuréel googu kat gisatuñ seen bopp ci biir kuréel googulee mun sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne ni bàlle na ci ñoom ne noon kat ak beddi ak ak doyadal ak guréel gu mat sëkk gis ñi nga xam ne ni ñoo ko jiitee di doxalee seen diggante ak ñoom duut nañ ci baaram nag ki nga xam ne ni moo di président bi di moo du mbay Ndiaye buñ sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne ni bàyyeekoo na ci Ablaye Samb ñoom kat ne nan li nga xam ne moo di carte membre di mandargaal ne bokk nañ ci kuréel gi gannaaw buñ ko jëndee taxut ñu boole leen ci dara lool nak moo waral ñu mer ba futt daal di fippu ngir sos geneen kurel waaye wili pande leen ci mbooleem fi nga xam ne nii dañ doon ak yow ci teranga alaaji pam ñang moom mooy suñu président communicateur bi ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal wan yan bi woyof kii nga xam gis mu dendal noonu mooy Baye Cheikh Ñang mooy nekk suñu charte de la communication kii moom lañ toppal ci ki nga ti moom mooy président muy vice président bi man maa topp ci ki nga ti mooy charte de la communication parce que olaf dañuy wax ni sareet du jiitu fas lii mooy sunu témoin muy carte bi nga xam ne mooy association euh, communicateur traditionnel bi nekk Touba siège national mi ngi nekkoon kër Sëñ Touba gi. parce que wolof dañuy wax ni seedes mbay dàgg te njaayum po rek làqarti li tax mu metti ñu mooy danoo jàpp ni bopp bu rëy tey metti moom bu tuuti sedd ko gën ndax ñoom suñu mag lan ñu xalaat ni gone bu jógee ci magam rek la war a làqatu te géwal ñëpp xamoon ni di ko ñëpp xame mooy defar ñaar ñu dëngoo mu jubale ñaar ñu jubo mu gënal amun suuxat fu jamm amul mu def fa jamm geewal nag bu démé ba nga xamante ni ay rakam mënu leena bot geer gum ni dama lay waxal lu bax dalay nax ndax nit bu fekkenti ni mënta dëkk ki mbokam kum ni damay dëkk yow dalay nax té nak geewal ñett dong la ñi fi nekk ñepp di wax geewalu juddo fi ne geewalu jubo ak geewalu jublu ñom buñ doon jël seen geewal buñ ñu seen geeru juddu fi ñi jël du bari kon nag bu fekke ñom gis na ni geewalu jublu la ñi ñi geewalu jublu wala geewalu jubo ñu xey xey bëgg ñoo génné bu nu sukkandikoo ba tey ci kàddu yi nga xam ne ni bàyyeekoo na ci ñenn ci ñi nga xam ne ni ñoo jóg ngir jébaane jëfaleen ak doxalin yu nga xam ne nii ñi leen jiite ñu ngi koy def ci kuréel gi lëkkale mboolem communicateur traditionnel yi nekk ci Touba dañ leen a génnee te génne gi kat dañ koo def ba pare waxuñu leen ko. loolu tax na nag ñu fas yéene yëkkati seen kàddu ba seen baat yem yëgal mbooleem ñi nga xam ne ni doon jëflanteeg ñoom ay teraanga moo xam muy gér yi kilifa diine yi wala kilifa aada yi ngir xamal leen que kuréel googu nga xam ne nii dañuy wuyoo ci communicateur traditionnel yi. dañoo bedd ñi nga xam ne nii ñooy seeni rakk. parce que maanaam indirect lañ ko def defuñu ko direct maanaam bu ñuy woote réunion kii coordonné réunion bi jaaja mbay moo ko daan woote. dal naa ci kawam ay yoon yoon daf ni gars yi dañ naan ko wool ñii ak ñii kon kiy joxe direction bi mooy président bi président mooy wax kon ñi mu woo ak ñi mu dul woo am na groupe whatsapp bu ñu def amul benn communicateur ñun ñi toog fii ñoo xam dafa sanc nañ ko lu mat at kenn nekku ca loolu ak génn la ba pare li gën a yéeme ci groupe boobu ci géwél gi mooy tiraanga juñ leen defal ku ko fekkee doo seddu exemple bi ma ci jël président de la may na leen 1 million bi mu demee Taïf bi mu ko joxee bi mu leen joxee 1 million ku fa nekkut seddu woo te damaa jàpp ni ay géwal buñu leen boolee teral leen ñeen nekk ci groupe ba ñëpp war na mos ca tiranga ngir ëllëg bu ndajee keneen defal tiranga ñu nga joxee ci géwal yi yegg nan waaye ku dem da ngay présenté wu ci turu géwal yi suñu leen joxee tiranga lekk ko bàyyi leen màggalu Moustapha Cissé Lo gi bi mu ñu joxee 500000 francs maa nga fa woon Modou Mbaye Touba bi ñu séddoo fekk ko fa woon bi mu ñëwee bi ñu demee nga xam ñi ngi séddoo bay a pare la koo séddaale waaye keneen koo xamante si nii fekke woowoon tiranga joojo lekk ñu leen di dékk nag suñu loxo ñun ñëpp yéen ñi nga xam yéen a ngi ci département bi rawatina fii nga xam ne mooy Touba ñu jël témoin bu baax it ci peuple Touba nan xam ni ñi nga xam ne ñooy woote ay communicateur traditionnel danoo beddi seen i mbokk danoo beddi seen i rakk te dañuy wax nag boo toggee sa sa rakk ci fas nga gójjal troote njaabal sa rakk daanu néew ko baa gaañu nga ah bu amee fulla bu jógee war na laa wax ne la mag lu ci mën di am daal kuréel gi nga xam ne nii dafa lëkkale communicateur traditionnel yi nekk ci Touba te ñi ëpp ci ñoom xeetoo ci askan wi nga xam ne moo di ngéwél ñom kët amna ñu ay jafe-jafe ñi nga xamné ni ñoko jité barki Dembo ndjay bi nga xamné ni ministre Mansour Faye fi ñu bank seen loxo ngir ñak gis seen bop ci lepp lo xamné ni day dugg Touba ñi tay ji fas yéene jàkkaarloog ñoom geneen kuréel nee na ñoom kat doxuñu ci lool danañ fas yéene rataxal seen ab digënté yaatal ko ci mboolem ko xamné ni mom lañ doon jëflante lu ci mëna am dal jamono yi kurel gi amna ñaar ñi nga xamné ni nak ñom lañuy joxoñ baramu touma di kurel gu maggi ñu ngi leen di déglu bu féké amna yenn tontu yo xamné ni bëgg nañ ko apport apporté ubbil nañ leen suñuy micro.